lan bikum waa OFNAC ya def nañu la leen président Jomaay Fay santoon réew mi yéene kaay fa ñoo xamal na niki démb ci alxamis ji OFNAC génne neen seen rapport ya ay kilifa yu bëri ci réew mi nag fañ leen a képp maanaam fañ leen a jàpp ñu def tooxi doona ci xalalu askan wi te mooy yéene kaay mel ni ku naan ko faalee ñaan ngir yàlla may ma ma wax sénégalais yi rapport yooyu génn gum ña nga xam ne fañ leen caa képp ke ca njëkk mooy Mamour Diallo 94 milliards ya la ca Ousmane Sonko enquête mbuur seen mairie ba ak conseil départemental ba ak Auchan ba wàllu tappale fa faa xam de informateur yéen na ko faale leeralal yëf mbuur seen Auchan ba nañ ko taxawale installation ba dara ca jaarut yoon wàllu tappale la GP yéen na ma nit ci yokkal am na ay ponkal yoo xam ne fañ leen a kepp am na ci koo xam ne ab inspecteur impôt domaine la ci koo xam ne milliardaire la boo xam ne fa siiw Sénégal ñëpp ko xam moom it fañ koo kepp ak benn maire boo xam ne benn bokk yaakaar la bokk naka noona tamit ab colonel moom it fañ koo kepp ba tax Birahim sekk coordinateur forum civil fa wax ne topp googu njiit réew mu jamaay fay bëgg ñu topp ñu nga xam ne fa ñoo tappale xalalu réew mi génne rapport yi yóbbu leen ci yoon Birahim nee na du yomb de ndax gaañi fa ñuy laal ay ponkal waaye bu mu tax ñu deltu ginnaaw de ndax yoon woowu mooy yoon wi baax mooy tax yorin wu sell am ci nguur gi lu jëm ci génne nag rapport yi nee am ay conséquences mën naa jur lu baax am na tamit ay njuróof yoo xam ne du baax Babacar Diouf maire bu Thiès leerlu ko ba tey ci vox populi na ko gis nga askanu Sénégal ci boppam ñoo soxla ñu ñu dénkoon xalalu réew mi ci jamono yi njiit réew Macky ñu leeral fan leen dugal xalal ji ku ci sàcc pasar pasare ay milliards yoon dal ci sa kaw xam nga def lu ne weng te dara du ci fekk ñu lay làq ndax président bi nga faral loolu moom fa war a jeex ci réew mi leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne juróomi rapport yi nga xam ne moom la président Diomaye càmbar contrat bi nguur gi def ak o dafa mel ni nguur gu bees gi fa ñuy lañ bët njaboot ak Mansour Faye gi laas yéene kaay waa forum civil yi fa ñoo sàkku tamit ci kilifa yu bees yi ñu négocier waat contrat pétrole Sénégal bi nguur gi fi bàyyeekoon lañ signé ca contrat ya baaxul ci réew mi fañ ko war a soppi l'observateur moom fay artu ci génnee rapport IGE ñañ ko war a jébbal fa xam loi boo xam ne fa ko tënk waaye jël rapport rek sànne ko ni ci mbedd mi fa yaakaar loolu mënta nekk li nekk di am nag jamono ji Sénégal mooy fa xam ay homme d'affaires yoo xam ne fañ leen doon jox ay marché public bi fi Macky Sall nekkee président léegi bi Diomaye yegsee ak nguuram gu bees gi xam nga homme d'affaires yooyu lu def léegi fa jël oto yu bees tàq oto yu rafet yiy jar ay cent millions lu ma la mënta wax gaaw di ko génne réew mi di ko yóbbu bitim réew le verdict yéen a kaay ne loolu nag fa tey xel ci frontières si fi lañ koy jaarale loolu nag fa war a leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne njiiti réew bu Sénégal jomaay fay fañ koo teeru ca réewu Mauritanie teeru bu mag rafet fañ koo lalal tapis rouge laas yéen a kaay moo ñu ko xamal le regard yéen kaay na ñaari président ya nag jomaay fay ak El Ghazouani njiital Union africaine fa ñoo waxtaane jëflante diggante ñaari réew yi ñu gën koo dëgëral xaritoo geek ñoom seen xool tamit ay jumtuwaay ay moyens yoo xam ne fañ cay jaar ba mën a suqali ay fànn yu bëri ci diggante ñaari réew yi Le Soleil yéene ne Sénégal ak Mauritanie kay fa ñoo gën a dëgëral jëflante bi ñaari njiitum réew ya fa ñoo waxtaanee dossiers yi gën a mag soxal ñaari réew yi la Quotidien yéene kaay na ko bokk na ci dossiers yooyu nag wàllu gaz ak pétrole bi ba ci wàllu napp jën ci géej gi <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja moo ne njiitaram Macky Sall bi mu demee ba xam ne nguuram gi jeex na fanam yu mujj wax dëgg yàlla def na fi loo xam ne ci réew mi baaxul dara ci jomaay fay ak ñi jiite réew ay firnde ne njiiti mi daal bi mu xamee ne fay dem nguur gi jeex na fa jël passeport diplomatique yu Sénégal yi pasar pasare ko fa cee mayee lu baree baree bare ñoo xam ne waruñ koo am sax fa leen koo jox ñu ne déetewaay fa xamal ay recrutement yoo xam ne fa jéggi dayo ñoo xam ne fañ leen a jël dugal ci fonction publique bi ci bu baree bare ci anam goo xam ne jaarut yoon fa signé ay contrat nguur gi ay këru liggéeykaay ci anam goo xam ne tamit yu mujj ci nguur gi fa doon neexal ay nit ñu bëri bokk na ca sax fa yokkal waa conseil départemental yi seen indemnité de session yi ak yeneen yokk yu mu def ci anam goo xam ne jaarut yoon libération moom fa xëy di ñu xamal ne université Amadou Mahtar Mbow bu jam ñaajo hée tooxi doona bu mag ci wàllu suuf fa ña wax ne fa faa xam ña ngi cay tudd ay aadama big togoog ak Touba matériaux laxat ka ak ñeneen ñu bëri les si ko yéene kaay moom fa ñoo xamal ne notaire bi ñuy wax Aïssatou Gueye Diagne fa xam problème yoon fa daan ñaari weeru kaso yu mu tëdd fañ koo xalamaan juróom benn téeméeri million yoo xam jàppee nag mooy ànd def lu bon ak wàllu tappale ba tey yéen kaay bi fa ñoo xamal ne waa ñu waxoon ne moo jiite woon taxal biisu yaraax ba ba am a ngi koy fàttaliku fañ ko doon ko delloo ci Sénégal wala Mauritanie ndax fi mu toll ni fitna amatu Sénégal lii yéen kaay ne hee Ndakaaru ngay wax gañ xamoon moom lañ fa gisaat démb yaaw seetal préfet bu Ndakaaru daal fa ànd ak takk dere ñu dem dajji ay cantine ak taabul yoo xam ne fa leen seen borom def du dëgg du yoon dëkk foo warta dëkk lépp lañ rajaxa toj toj ko léegi nag marchand ambulant ya ñoom fa ñoo mer ci loolu kilifa yi def ba tax am na benn oto policier boo xam ne fañ ko lakk ak benn bus Dakar dem dikk moom it fañ ko lakk mairie bu Ndakaaru nag raxas nañ seen loxo ba seet wecc ne ñoom loolu seen yónnewu ci l'observateur ne ndëraan ba kay dajj gam doon dajj parc Amazout boobu ca Colobane kilifa ya fa ñoo dindi dajj barab boo xamante ne agresseur ya fa lañ defoon garan place ak barab boo xam ne ñetti téeméeru ay yalwaankat yoo xam ne bitim réew lañ bàyyeekoo ñëw Sénégal Niger ak yi ni mel loolu yëpp fañ koo dajj ndax loolu ñu dindi ko fa révélation yéene kaay na ko marchand ambulant yi fa ñoo taxal Grand Yoff ña daanu ca ay oto yu bees tàq mooy député sénégalais ca assemblée nationale yaw seetal dotation oto député boo xam ne membre bureau nga 4-4 Prado bu bees tàq moom lañ la jox député boo xam ne président commission nga 4-4 Mitsubishi bu bees tàq moom lañ la jox député simple xam nga lu ñu leen jox naada léegi su ko yéene kaay moo ko wax car moom fa xëy di ñu xamal tàngoor wu métti métti métti ba jéggi dayo bu am jamono ji ci réewum Sénégal rawatina nag ay Fatick ak Kaolack Ndangaan ak Tamba réew mi daal non tàngoor fa jéggi dayo léegi ko yéene kaay ne faham benn xale bu góor bu tudd Cheikh Tidiane Sadio fañ koo sélectionné mu war a football ci benn club bu nekk France mbégte boobu nag tax mu oo benn xaritam bu ñuy wax Adama Cissé na ko booy léegi faa kontaan ndax am naa club ci noonu rek wax ju sew dox seen diggante ñu xuloo jàppante Adama Cissé fa ray Cheikh Tidiane Sadio bi waroon a football ji France ba pare daw bàyyi ko fa la dépêche yéene kaay moom it fa ñoo yoo xam ne ñoo bokk classe fa ñoo demoon ca place bu gàddaay na fa ñuy ndox ma yóbbu leen fi mu toll ni fa ñoo réer leen le public yéene kaay moom it fa ñoo mbir mu yéeme faham ku faatu ñu di ko jébbal boromam ca dëkk bu ñuy wax kanel benn chauffeur ñëw ca biir dëj ba nit ñaa ngay jooy ak ay mu faxe ba jël xale bu ndaw perental bu jigéen bu am juróom-ñaari at ca fa dëj ba am daal di koy tëddee def ko yëfu saay-saay ay